déet. tayo yàlla te yow sax et puis lan nga ma yebee ba may jàll nga am a ee man damay sa morom mën a ee li yàlla. convocation. convocation man kan moom moo indi convocation fii ak man lan laa man ma kenn problème bi ah. soo paree nga da wuyu ji gendarmerie. mais est-ce que sama tur sama ah gendarmerie. te boole naa si tamit certificat médical. voilà Zeyna félicitation ndax euh, vraiment euh, vente bi moom am na ba pare. oto bii sa oto la léegi. léegi nag comme ñun dafa am lu ñuy liggéeyee boo jëndee benn voiture ci ñun da ngay déposer sa signature ci acte de vente bi ñun aussi ñu déposer sunu signature pour ëllëg bu ci dara amee oto yi sax moom yëpp a légal waaye xam nga seytaan dafa bari doole. comme ça moo ëpp sécurité daal ñu xam ne ci ñun nga ko jëndee woon voilà loolu mooy garantie bi mën nga déposer fii sa signature non toogal toogal li yàggul damay signé rek après yàggul day kon Zeyna ma ngi ñew ma allahu akbar mo yaay fàtte sa telephone Thank you. Eh, yow dóor yi mën a dóor fii moo tax nga dem indil ma plainte yow est xam nga li nga def yow yow lu toll ni sa bàyyi nga jël di ko yóbbu ay gendarmerie. bu ma waxaat waxi bàyyi de di nga sama bàyyi musumaa dóor yow nga jàkkaarloog ma tey naa nag may dóor heure ba pare nga ne wuyu ci mais yow dóor la taxul ma bañ la dóoruma la sa jikko laa doon dóor parce que kenn du am doomam di ko bañ li nga fi def nag yoon la ma dóor la te dóor yooyu jàll na jàll na nga dem di ma yóbbu gendarmerie mais wax nga mel ay plainte sa yaay day musuma yobbu police yow nak yow ya am xelu dumay bu gendarmerie. yaa ngi si jàmm. yow da nga xam ki wa ki moma jaay sama auto bu mala doon wax dama ko jëndere sama non. auto rek ngeen sekkee ñaar. wa da nga ko xam. kër lu mu tuddu mo ndaje la tuddu on dirait que da ngeen xamanté bu yaak ba yaakaaroon ni damay doxaat. du loolu sax kanamam moo amul ma jox rek. mais musu leen xamante fenn. je pense que joxoon nañu liggéey maak moom benn liggéey bu ñu sekkoon moo tax ma confuse quoi mun na nekk ndag duroo la waaye du dara. en tout cas seen réaction bizarre na trop. Hmm. waaw xam naa kër gi. fi ma tegtaloon rek balaa ñëw nii. ah mbaa soxna bi ngay ñëw déedéet sonn bi. ah c'est bien mm. ah ma may loolu seet ah, mm. laa gën a bëgg nag. café ah. ah. kese mm. da ngay citron wala. non café baax ah, léegi nag da jël say at ba ko wér sama kaw. bàyyi leen buñ ne leen mesure ngeen rek ngeen bëgg koo def arme di ko xeexee loolu baaxul te téye sa lii nga dem annulé plainte bi man du ma dem gendarmerie. teewul yow loolu nitu fii yow. nitu fan la nga da wuy yow boo paree nga da wuy ji. waaye da nga yaakaar damay def rek ñu tëj man sama doom nga am naa droit nga def lu dul yoon ma ñuus la ba nga duul te bu ma demee dama fay wax xam naa ko. parce que sa baay laa boo fi defee lu dul yoon dama lay duma man man lijjantiwuma man ay plainte man ni may demee noonu lay dikkee da nga yaakaar ku dem ne da ngeen koy jàllale ah léegi daal majeur nga da ngay jël say at di ko xeexe amul problème di nga xam ne sa bàyyi ngay xeexal yow man man ragaluma fa ma jëm même bu ma demee gendarmerie dinaa ñëwaat ci kër gi toog fii incha allahu rabbi ni ma demee noonu laay dikkee te kër gi lépp li fi war nañ ko jubbanti nañ ko teg ci yoon waaw man ragaluma fa ma jëm man amul lu ma ci amul la ragal man de xamuma fu ñu ne wet gore wetelu ko gore léeg-léeg lu wax ji neex neex bàyyi ci xel doom yaay bala am li la neex danga tër sama nangu la mu yor rey la ba noppi jaale la loolu mooy li fi xew bala am li la neex gadar sama rom nangu la mu yor ada la ba noppi jaale la loolu mooy li fi yow nga di man yow nga di dama rek samay yow kay yow weekend bi passé li la dama laa woo ci sama ñaari numéro yëpp waaye day sonné rek hmm. waaw xanaa boo gisee sama numéro après nga rappelé ma xam nga rek man moom souvent damay e faral di def soxla yaay woote ba keroog nga may jot mais ay di la rappeler yooyu nekkuma ci. ah moonte daa nga ma ràppale de. mais dama cee génn jamono bii. Hmm, da nga changé léegi. Hmm, dama jël beneen méthode beneen yoon di ko doxee. Ah, kon baax na yàlla baax na man de li ma fi indi woon tey mooy mbiru biram ndax xam nga ni tuuti Kilif daf koo indiloon warugar ba mu ko indilee warugar bi. biram a ko toog ke ba nangu ko nanguwul bàjjen toog nanguwul sama xarit toog nanguwul kenn toog moo ko nangu ci loxo boppam xaalis bu dul enveloppe bi ma séen ñu naan am ak indi suma bët teguwu ci xaalis bi léegi nag actuellement ni mbir mi daf ko ëpp doole hmm. ndax kilif dafa liggéey xaalisam ba bari jox ko ay mbokkam ñu indi warugar bi dem nañ ba xam ne nag affaire bi mënatut a nekk ndax bi mu indi warugar bi fekk ne dafa am benn waajum ëmbal doomam waaj a jóge village dégg naa ànd ak doom ji ñëw kër kilif ah, ah kilif ah, xam nga ni loolu problème la te boobu tuuti mi ngi wàcc xewam léegi nag ma ne ko nañ ci génn ba set ci wicc xew mi dootul am ndax kilif wóolootuma ko ndax salaamaaleykum maaleykum salaam waxaguñu tàkkaguñ sax nga def lu ne wee ngi loolu sama xel dara du ci léegi nag actuellement nii damaa bëgg nga wax ak biram ni nga daan waxee moom na jël xaalisu jàmbur jox ko ko ndax xaalis nag loo xaalis lo mom, kilif actuellement ni mi ngi taxaw di menacer touti papa mom waxi nop ñun ñing ci ay problème yu maga maga, maga mag xamna ni lool dang ko yegul ndax boko yegul di nga bay lepp lo japp ñew li mo doon samay euh may merci li nga dox rafet na mais dama xamni bu doon ko dox fi tay ba bala mo genn keur gi ma ñuus ko mani bu doon koor mo ñew fi tay di ma woo ci ba bala mo genn ma nok ko yow nak jigen nga xawma nu ma lay def ndax droit de la femme yek affaire yoy et cetera noonu moo tax ma ndess ni cool genn jappé ma ben objet bo xamni bu seen kër naqaree rek ngeen may wo bu seen kër nexé duma len gis ku nek di ma xass ci souf gewel bi nangam nangam ñun suñu gewel gi ñu nek dañ ci fier comprendre nga biñu démé ba bëgg jël sama ngeewel gi utiliser ko défé ne ñak fayda moo tax ma doon ngeewel ma wan ni ci si fier être ngeewel man de bokuma ci té as dama bëgg nga delloo sa xel ndax ñëppay mer nak ndax am lo xamné bu la ko nit défé am nga droit mer waye dama bëgg nga xamné yow tay man bima ma biram di bëgg ci kuma ñaan ci woon man ma la dox kan moo fexe ba ma ñëw toog ci kër gu njëkk ga ba ñëwaat fii. man mii la kon yow rek xam. kon nag bu lii taxawee rek bul ko gis. biram dëgg la ku nekk xam na ni nitu intérêt la ku nekk xam na ni mu war a doxalee àddinaam du ko ko doxalee moom nay neex rek ci côté moom faalewul keneen lijjantiwul bopp kenn moom boppam rek. ndax xam nga ne tey bu doon nitu intere googu dama koo xool wala ma xool lu muy defee lu ñaaw ba ci samay mbokk doxulul ak ñoom ci yoon kon tey bu doon doxal ci yoon tey tuuti bàjjanam dina toog terewul damaa toog muñ ndax am na loo xam ne yàlla moo la koy nettoo danga koy nangu. yow yaa dóor xale bi. ah waaw maa ko dóor kay parce que sama doom la moom bàyyam dafa feebar néew fa man maa fa nekk mun ne ci kër gi di semer la bordel ma ma ma dugg ko ma dóor ko ba yu bëgg a dee kay maa ko dóor de. est que yow xam nga lu ci dóor xale. dóor sa doom kay bu xale mooy jàmbur mais man sama doom laa dóor sama doom laa dóor de. sa doom la yaa ko jur ba tax nga am sañ-sañ dóor ko.

donc boy bi ñëw na fi présenté fi ben certificat médical bo xamni ni il est de vingt jours yow dans les normes amoto droit sax nga tok fi. dañ la wara jël daaj la ci kasso bi. defeer la nga dem jakarlo procureur. kan la jakarlo? man duma jakarlo ken, kenn marakis laa ko dor, dama ko dor yet dama ko dor cour. Mom sama dom dor ko marakis ñaan 45 jours ak ay. peu médical ak ay sama yoon dang ko euf. ëff. yow. médical bi limu wax. ci loolu lay sukkandiku te et puis xam nga lan la sa kemu diggee ngay mel ni dama bëgg nga tëj sa fi amutoo looy wax de xamante ngeen top su ngeen jugee guddal si ay sikin ñu yaakaar ay kilifa ndekete du ngeen dara. non xolal dama dama lay wax nag da ngay modérer sa langage quoi. non eh eh fii sama biro la. man munoo maa napp de. fii sama biro la. soo ngay tëj sa yow kii xaaral. bàyyi nga def. bàyyi lépp loo jàpp nga ñëw lijjanti kër ga jaxasoo na de am na problème de seen ma ci rek. may yow xaw ma nu ma lay def ndax lii nga ma raconter nii wax ma lépp te lépp man maa ko dox mais su fekkoon biram ak biram rek. dootu leen ma gis. parce que war yi ma wor dafa métti dama ne woon naa toog gis nga te ni ko kilifra yi. loolu laa ko ndax alalu jàmbur mënoo cee tëdd def ci lu la saf yow dañuy ñaan sa doom ngay bëgge mel ni kuy jaay sa doom loolu pour lan la na delloo si xelam man nag su ma duggee ci kër ga awma lu may wax ak moom ci ngaare laa jëm parce que man ak ngaari démb la woon biram moo fexe ba jaxasi sama diggante man ak ngaari mu rus ci lool xam ne defuma sama rôle dinaa ci dox dinaa ci wax bala maa def leen nag damaa gisee ngaari bu ma fa duggee daal yow jàppal ne seetuma biram dinaa wax ak ngaari li ma koy wax ba pare ndax nag munu ma ne daf may def deuxième baayu xale bi bi mu nangoo ay waru garam yëguma ànd boo gis day am kenn ku ci tane ñaar ñu yem jikko mënuñoo ànd. faaw am ku def nii am ku wàcc. beneen bi tamit yéen ñi nga xam ni yéen yéenay ay jabaram foo ngeen am fulla am mat gis nga couple dafa am na muy doxe am na loo xam ni man yow mi ko séq la bi la intéressé mm-hmm. beneen bi yow ci sa bopp sa vie privée la beneen bi man sama vie am na loo xam ne waruñoo lëj bët lépp. li doxal sun sen couple na ngeen ci nek mais vie privée nit ki nga genn ci biram dara c'est vie privée mayu la ko te dara ci viwam wam yimay dundu yep ak diko gis si kër gi mënuma koo wax dafa bari as man biram kañ la gëj fanan sama nek dama ko yëgal sama yaram fanaanum sa nek man mi est ce que dama la koo wax mais may yow lool noko muñe ci loxo yalla té xamné sumay sey sama njabot moo tax du est-ce que mësna la wax li suma ko wax. waaw mi ngi nonu parce que suma ko xamone loolu réglé naa ko bu yàgg. <laughs> parce que mëno teud yow sa neeg di nem say morom di missioné yor seni yor seni bal di seni seni gon yow nga teud ni tek dama la bëgg a wan dafa jéng doxul ay mbiram ci yoon. waye yalla gëmul nelawul. bu jéngee do ñew ci man. ya déet as dimbale ma rek man li ma bëgg mooy ah, waxal ak moom rek ñëwal daa nga lijjanti kër gi rek ndax gis nga waajiñ ko séqal muy kilif da di bandi bu sotti dina ko rey kilif mii ma xam dina ko rey dinaa fa ñëw benn na kula maa lay waaw xam eh, man ngay wax eh. damaa ñu danga may dégrade doon bi laa doon ma dégrade danga may dégrade dégrade tumal ci xale bi ah yàlla nga topp ci président. Eh. dootuma ko dóor. wallaahi dootu sonn naa yuuxu naa ba sonn mënatu ma. di nga dóor bi xale bi wallaahi dootuma ko dóor. dootoo ko dóor dootuma ko dóor. ok dootuma ko dóor. comme ay daay la dootuma ko dóor da ngay jaay la xamali. ok dootuma ko dóor dootuma ko dóor. da ngay jaay xamali. je vous accepte je vous accepte. billaahi dootuma ko dóor. di nga ko dóor déedéet. espèce de. sama estomac bi. sama estomac bi jaay da xamadi. xamadi hmm. eh, eh, day euh, dama war a ñaf ci kaso bi sax. te ku ma gisati ngay dóor sa doom dinaa ko wax ñu bàyyi xale yi ñu dóor. kon donc dama lay jox benn convocation. dégg bu ma joxati bindal ma benn lettre boo xam ne. te jël eh, sa làmmañ. no tuddu eh, eh, ngari borom ki borom ki borom borom teranga yi. Ngari mu baax waaw Ngari waaw. ngari borom ñent jabar yi parce que sama mak mo febar Bayi fi ñaari jabar ak sama ñaari jabar yi ak xale yi yépp ñom ñëpp ma leen yor sama xarandoo bi sama xëtër yeeg sama yëpp yàpp. démé waaw démé démé 11h. 11h nga ñëw nga présenté wu fi inshallah convocation bi tayit li ma lay wax na dem ci moom jarul sëqët te jël sa lamañ laa la wax yow damay bàyyi convocation bi rek na dem ci xale bi na ko baalu ak mu ñëw retiré plaintam sinon ci mbaam bi nga jëm. waaw amul problème ah, dinaa def loolu def loolu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 te su ma la ko waxee nag ma gëm ndax yow doo dara tekki woo dara yow ku bon nga baaxoo santoo yàlla yow vrai imbécile nga yow yow tey su ma amul woon lu may seet bu eh may seet dinaa la def lu mel ne que tamit. Eh, kii doo ko dara déglu ma eh, rek noppil yow xam ne ki ngay waxal ci kaw demal bu expliqué kii dara. kii deful dara amul benn problème heure ñëw rek demal si kaw demal demal demal. boo ne si kaw yow rek leen. bàyyi jaawul ngoo ne bu fi indi problème. amoo benn fula. yow mi yaa amul fula ki la la def ba xale bi ba jaawul mais arrête. waaye bëri kii li muy def nii man engagé wu ma man man li ma engagé nii jeexagul. parce que doyen li mo wax leer na nee na ma yow tay bo bindul record bi nga ne baal nga ma suba ma ñëwee dañ may duma tay ay dumay gendarmerie wor ñu lay door duñu xol fuñ lay door tay sank li ma jottu def man xamna ko mais duma ko wax kenn dañuy torturer ni ñi te comme yow na xalé bu baax nga te amo benn problème erreur mo amo dama bëgg nga dem excuse moi quoi diggante papa ak dom da nga bëgg ma baal ba wax nga baal. baalu ma la. waaye dimbali ma rek nga baal ma. sukkal ma baal la sonn naa trop ci laa jëm nii kay. waxuma foofu de fii. waaw dama ñëw dama ñëw damay ñëw nii man damay ñëw nii. gis nga yow que dóoreeti yow. te bu de man ak man baalu ma la. naa ci ay waay que ma nga baal ma asu yow mais asu asu il faut excuse quoi parce que gars yi ne que suba ma ñëw dañ may frappé asu asu mais dis-moi asu yow tamit xam nga tam sa bàyyi di ram nii asu tam li ñaaw naa li baku ci asu mais asu.